Monsieur le préfet Monsieur le président du tribunal Si euh, gisee nag ñu def euh, formation bi ñu woote ko que xam Sénégal depuis 2014 dafa adopté le plan Sénégal émergent Le plan est unique référentiel des politiques publiques képp kuy def dara daal dafa war euh, boo demee ci biir plan boobu nag dafa am lu ñuy wax axe 2 lii ñuy def tey fa la dugg euh, lu mel ni donc euh, des programmes de formation yu jëm ci doomu aadama yi Sénégal nag bi mu tegee plan boobu aussi da ko bootalal ay programmes yu mel ni PAMA programme d'amélioration et modernisation de l'administration PAMEC pour l'amélioration de l'état civil à PACASEN bi nga xam ne sax Sénégal euh, suñu commune bi am ci dara euh, ci loolu commune de Touba ni ñoom dañu contribuer effectivement à l'amélioration des ressources locales

ndax bu dee affaire boo boo jëmee ci santé état civil mooy njëkkantal ba boo jëmee ci sécurité bi état civil bi moo ko laltaay boo jëmee ci éducation état civil moo ko laltaay mais yooyu yépp nag pour nga mën ci am état civil bu jaar ci yoon parce que tey su ma ñëwee ni la dama lay informatiser sa état civil mais su ma ñëw fekk këyitu daaw wi mi ngi ci ron këyitu daaw jéeg këyitu daaw jéeg mi ngi ci ron këyitu 1904 effect euh, yu mel noonu bu boobaa liggéey ba day jafe pour daw lu mel noonu nag gën a yokk taxawaayu état civil lu Touba ak progrès yi ñu am loolu moo tax ñu ni nañ def formation bi pour wax agent yi d'abord lan mooy seen

moom lañ waxtaanal bind TDR yi yónnee ko ko mu mu mu dugal ci xalaatam defaraat ko ba ni ñu lii daal yaakaar naa ni su ma ñëwee jàngal ko seen agent yi ak seen officier yi ba léegi si biir di ngeen gis ci ñoom ak yokkute loolu moo tax tey ñu andi ko fii mu war leen a defal formation moom nag comme ni ko maire waxee doomu dëkk bi la fi la dëkk. ci la donc li muy def feneen ci bitim réew xëy na moom du leen ko wax mais moom it léeg-léeg dañuy soxla expertise ci biti Sénégal mu dem liggéey fa euh, dellu siwaat fi donc loolu kon bu ko dëkkam wooyee dañuy da ciy gën a sawar pour ñëw defal ñu ko fi euh, moom nag mi ngi jaa jàngam mi ngi tëdd nii mu ngi jàngee école franco arabe bu Njaaréem ba mu fa jógee mu dem CMT ba mu fa jógee mu dem lycée ba mu fa jógee mu dem université Cheikh Anta Diop ba mu fa amee lijaase ya fay yay dugale ENA mu dugg ENA jàng fa yore diplôme ba mu génnee liggéey na fu mel ni Fatick dama ci wax ay ñaar wala ñetti dëkk liggéey fu mel ni Fatick liggéey fu mel ni Kolda ba yàlla tey indil ñu ko fii maanaam indilwaat ko dëkkam mu ñëw nag war ñu présenté thèmes yi war ñu jàngal moom euh, li état civil lan moy tanki yi ak lan mooy dëgër laay may ñaan rek euh agent yépp manam séminaristes yépp ngeen diglu bu baax parce que man dama kontaan sax parce que euh, tay dama xey ñew ay huit heures 8h euh, et demi neuf heures moins 4 ma fekk agent yi ci biir salle bi ma ni ah oui man de yàgg naa dem séminaire mais léeg-léeg moom séminariste yi dañ leen daan xaar mais fi tey moom ñoo xaar ñi leen di defal séminaire et loolu signe la boo xam ni li ngi li séminaire bi intéressé na leen et donc monsieur le président xam naa ni la bal est dans votre camp ñoom ñëpp yor nañ seen bic booba tey ñi ngi xaar am na sax ñoo xam ñu ngi commencé woon a impatient mais xam naa bëgg a jàngale rek merci beaucoup Merci,